Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yai Barom. seetaan Banjul Night Live. Badi kun kanya la ñam jata bu ba akam ne le Banjul Night Live. Man ak may Night Live sama show live on GRTS. Promote artist bi ay na. nga ne yaay promote tambi organize ko show invite ko mu ñew joxlo ko sax pass bu mu ñewé. su pefee ne mu wàcca mu dem thank you nga ko fa dee tegal léegi léegi thank you celebrating one year. Come celebrate with us on our one year anniversary. Three dates, three shows. October 4th, Sunswings Hotel, Senegambia. October 5th, Atlantic Hotel in Banjul. And October 11th, Bidkama Joko, the show you don't want to miss. More information coming soon. www.banjulnightlive.com. right Gambia welcome back um, uh, rek waxtaan bi dina gën a continuer am suma yaay ju ji maa maa laa la ooyee anyway <laughs> maa naka nga gisee um, bi fii si biir Gambia bi waaw Aida advertisement bi fii ci biir Gambia mun naa wax ne man suma side anyway man suma side am good okay am so fine pour advertisement because xam nga liggéey bu fekkee ne yaa ngi koo liggéey te nga mun cee réalize dara mun ngaa wax ne liggéey bi baax na because man ci advertisement def naa ci lu bari li ma am yëpp niyaali ci advertisement laa ko amee teraanga bu ma def niyaali ci advertisement laa ko defee loo xam ne amal naa ko suma bopp ci advertisement laa ko defee laa ko amee because um, li am solo mooy ngay liggéey te am fayda xam nga loo gis ci àdduna fayda moo ko yóbbu te man dama believe in fayda man dama ko gëm man yàlla dafa def bi ma nekkee xalal ba tey dama gëm ci fayda waaw man luy caaxaan rek bokkuma ci yàlla moo ma bindee noonu. Mhm. xëj na nag li ma nekk benn doom la bi ma toogee ba gis ne benn doom rek laa ah aw ma ku ma jàppandeku ma téye ci suma fulla ak suma fay na nag. moo tax ma mën a dem ci liggéey bi. ba agsi fi bii fii ma agsi waaye gannaaw yàlla nag maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. ok am um, uh, ja uh, royee naa si yow jàngee naa si yow dara. am mm-hmm. um, uh, nit kuy def dara. Mm-hmm. Um, da ngaa fata sa noppa yi doo mm-hmm. faale ni lu ñoo wax. ñàkk yow mi nga xamante ne yaa ñu mag sa nga nekk suñu yaay yaa ngeen liggéey di toppatoo sa soxla. fu mu rek am ñaar ñetti nit ñuy sànni ay kaddu yu laa metti naka nga dee diilee ak façon situation yooyu. am ayda man man man suma boppam man ndey seena bu jeng yaay ministère. man yalla dafa def munuma deka, dara dara dara lu dom adama di wax ci biti munuma ko man loolu ma I don't care man man woriuma man falewuma billahi wallahi tallahi man dama ne nit ki nit la man sakuma la man indiwuma la si life understand nga so munuma la tere pour nga wax li nga bëgg wax o nga def li nga def mm-hmm. jéemuma ko traayuma ko sa business la is you is not me <laughs> understand soo jéemuma see try sax dara loo wax ci man faalewuma ko toppatoowuma ko because man mënuloo ma dara mm-hmm. man mënuloo ma dara am independent understand mm-hmm. suma life maa ko rule soo jéemuma rule life fu jàmbur ku rule suma life fine is your business man toppatoowuma dara ba pare Aida man leena moo nekk sax man lu gën a neex ci man mooy dama dee wax ne amee free passing maa gën a neex life parce que xam nga lu tax man du ma dee déglu. Mhm. te du ma dee laajte bëgguma xam xam nga live soo ci nekkee danga dem ba mel ni ku dof te doo dof. gis nga live soo xamut xamuloo sa live dafay neex. soo bëggut a xam laajtewuloo sa live dafay neex waaye gi nga booy gëstu di seet nit ñi nuñ laa xoolee gi nga booy dem boo doxasee bay dem demal bul gëstu bi ko soo gëstoo rek foog nga gis bët bu la neexut. Mhm. soo tàllala nga dem sa yoon. nit ñi liñ bëgg a wax kenn mënoo si daara jéemuma xam. bëgguma koo xam toppatoowuma ko suma life laa toppatoo lu neex waaye mu wax I don't care lii ma ne ko lii maa ko sañ a wax waaye anyway ma difficulties yi nga xam ne yaa ngi ko doon fay si advertisement bi mm-hmm. moom laa bëgg pour nga xamal ñu ko fii si BNN mm-hmm. ok difficulties yi nga xam ne maa ngi koo face mooy dafa am nit ñoo xam ne day ting ne ñoom ñooy nit keneen du nit mm-hmm. dañoo am seen liggéey seen marchandise ñu xam lan la woot ñu xosul seen xaalis indi goods ci dëkk bi teg ko jël sa boutique nga sol ko ba mu fees ay worth of millions nga ñëw oo nit pour war koo fay loo xam ne su la ko waxalee mu indi yeneen millions. nga xoolee ko koo xam ne da nga ko war a jox ci kin change yoo xam ne ay thousand dalasi two thousand dalasi loolu dafa may def ma réer <laughs> waaye li waral loolu dafa am ñu ko nangu. Mm-hmm. because sometimes man su ma demee si wéréb da ngay dégg ñu ne yow ñu ne da nga seer obviously. man utatuma ku ma xam man ay da su ma toogee ba léegi di ut ku ma xam kon man su ma dunda gi baaxut man léegi damay liggéey pour dara damay liggéey pour survive damay liggéey pour ñu xam ne li tax may jóg di dem darang fa mm-hmm. because dama fa bàyyi njaboot dama fa bàyyi ay doom su ma jógee ne maa ngi liggéey doom yooyu war nañoo gis li may liggéey lan la mm-hmm. waaye su ma demee ba loo ma jox rek ma defal la kon man woodatuma li ma doon mm-hmm. so man dama bilif ne dama war a bàyyi ñi nga xam ne ñoom soxla nañ loolu ñu jël ko man ma soxla lu bari ma toog xaar mm-hmm. because yàkkamtiwu ma yàkkamtiwu ma dara utatuma ku ma xam tubaarkaala macha allah su ma liggéeyee maa ngi survive mm-hmm. su ma liggéeyul it yàlla may na ma doom ay doom ñu ngi liggéey ñu ngi maa toppatoo understand nga mm-hmm. man damaa laaj suma price man dama believe in price <laughs> waaw <laughs> okay ma I'm uh, talking about uh, prices Mm-hmm. ok um, most of the time fii nii uh, ma amoon na time boo xam ne. Mm-hmm. GRTS boo ko tale macha allah. benn ñaar ñetti yoon.